ndaxte dañoo tase koo xamante ni nattu Sénégal la cuune Sénégal la askanu Sénégal yëpp ñoo ne rëccu nañu donte nag ñun bokkuñu si ñuy rëccu ñu koy wax rek ne ko fi ñu toll nii muy def si xelam njublan ba ma bëgg changer constitution bi du ko nangu

nañ leen ko dem jëli ndaxte nag Macky Njublan dafa am lu mu nar mu ngi wut système mu moom la bëgg indi suñu carte d'identité yi nekk foofu noonu la bëgg jël parce que xam na ni askanu senegal duñ ko signal lenn loolu la bëgg jël pour signaler ko boppam te duñ ko ko may nañ leen jëli suñuy carte d'identité waaye nag li fi xew ñuy ay jigéen di ay yaay ku dul yaay sax mu metti la ñu ngi ko siy woo Ici, non seulement le président de la république Macky Sall ici le premier ministre qui a xamante à l'Assemblée nationale de ses déclarations de politique générale 2h45, cinq minutes nous ndaw kon nous waru ñoo nous ngi suñuy doom nous ngi suñuy doom ngi nous suñuy doom ñu nous minutes mën a tey micro fàtte franche bi ëpp solo si doomu aadama mooy que ni loo wax askanu Sénégal war nañu gëm ne ay lépp sa bopp nga gëm waaye nag nañu pare askan wi ñoo leen di woow li ko dalee si président de la république le premier ministre la ministre de la femme bi nga xamante ni jigéen la yaay la ñu ngi koy interpellé si situation bi waaye ministre bi nga xamante ni dañ koy wantit biir Sénégal man de Ndiaye ku ma ko indil dinaa ko fay xaalis

donc une leen jëli une carte d'identité ñi ko nous nañu dem inscrire je vous remercie